بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررا قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره بارك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم عبس nekk na koo xam ne ñëkkal na kanam ga wa tawalla daa di dëddu du mooyu an jaa'ahu al a'ma ngiri dikkal na ko silmaxa ba wa man yudrika la'allahu yazakka ama ndax lu lay xamal ne moom day mën naa nekk sellal boppam aw yazakkaru fa tanfa'uhu zikra wala mu fàttaliku mu jëriñ ko fàttali ga amma man istaghna bu dee nag ka nga xam ne moom daa doylu ci li ngay woote fa anta lahu tasadda yow day yaa ngi nekk di ko gaar di ko fekk wa ma alayka alla yazakka ca moom day dara nekkul ci yow ci moom bu sellalul boppam wa amma man jaa'aka yas'a amma kii nga xam ne dalaa dikkal nag nekk di daw te mooy jublu ci yow wa huwa yaxsha mu ànd ko ak ragal yàlla fa anta anhu talaha yow yaa ngi nekk di ko sàggane kalla déedéet bul defeti loolu innaha tazkira lii ak fàttali la fa man shaa zakara ku mu neex fàttaliku fii suhufin mukarrama mi ngi nekk ci ay bindukaay donte ne bu jëkk ay deru gileem lañ daan def donte ne fii moom borom baa ngi wax ya nekk ca loxoy malaaka ya yàlla xam ci ban matière la doon ma nga nekk ci ay page feuille yoo xam ne nii yu ñu teral la marfuatin mutahara yu ñu yëkkati laabal ko bi ay di safara mu nekk ci loxoy ay ñoo xam ne dañ leen di yónni muy ay ambassadeur di malaaka ya kiraamin barara doon ñu tedd doon ñoo xam ne ñu baax lañu qutila al insaanu ma akfara e way alku na doomu aadama ak tar ak kéefér min ay shay'in xalaqa wa moom ci lan lañ ko bindee min nutfatin xalaqahu fa qaddara ci toqaman yu dey la ko bindee ci loolit la ko dogale ay dogal summa sabila yassara gannaaw ba yoonam ba mu yombalal ko ko summa amaatahu fa aqbara gannaaw ba mu faat ko daal di koy denc ca bàmmeel ba summa ida shaa anshara gannaaw ba wax waxtu wu ko neexee dana ko dekkal kalla lamma yaqdi ma amara waaye déedéet day doomu aadama moom deful la nga xam ne nii moom lañ ko santoon lépp mi ngi noonu mbokk lii mooy suratu abasa suñu borom yàlla subhanahu wa taala sabab ba moo nekkoon rasul sallallahu alayhi wa sallam bi muy nekk ca njëlbeenu woote ba da daan def kilifay quraish yi fu ñu toog mu ñëw di leen gaaral la nga xam ne mooy diine ci lu ci bari da ngay gis ne daawuñu ko déglu keroog nag yàlla natt ko mu toog ak ay kilifa ca ñoom di wax gaa yi toog di ko déglu mu am benn silmaxa bu jóge fële mi ngi noonu di abdullah ibn ummi ummi maktum moom silmaxa la xamul lu xew mi ñëw rek fekk yonent bi toog ak gaa yi mu ñëw ah ya rasulullah mu naaw jàngal ma aaya yi yàlla mu jëwaat ci waay yonent bi am gêne ndax xam na ne kilifa yi bëgguñu toog ak moom te it mi ngi koy perturbé donte ne waxu ko dara gêne boobu mu gêne wu rek tontuwu ko ca la ko suñu borom yàlla wàcceel aaya yi daa di ko ci yedd yedd yu metti ba dafa mujjoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam heure bu gisee abdullah di ñëw muy jóg dem gàttandu ko gis ngeen ñëw gàttandu ko toogal ko ne ko marhaban bi man aatabani fihi rabbi kay dal dal bu kii yow mii yaa tax sama borom yedd ma dalal ko muy abdullah boobu histoire am nekk na lu lu yéeme terang boobu ka yonent bi yëkkati woon tax na ba ay yoon yonent bi dem na madina génn na madina ci jihad abdullah la bàyyi mu nekk gouverneur Médine en tant que silmaxa loolu pour rek feeñal la ko yàlla yedde ca may doomu aadama yi kenn du leen xeebe ca nattu yee leen yàlla teg day gis ñu bëri silmaxa la rek ah silmaxa la laa wallahi mbokk silmaxa mën na am yaa gën ci dëkk bi loolu ñu bàyyi ci xel bu baax daan ci bàyyi xelit ne ñu ne booy xam le nit ki ne diw silmaxa bi boo ci jubluwul saboote ko loolu dara néewu ci gis ngeen kon yeneen ci bàyyi na ko ñaari yoon mu nekk gouverneur Madina gannaaw ba it gis nañu ne yonent bi joxoon na ko mu yor ñaareelu nodd ca jàkkaam ja su Bilaal noddee ba fajar jotee Abdullah moom mooy nodd nodd ñaareel keroog ba nga xamee ne nii ña ngay xare ci Qadisiya di xare ak romain yi di xeex bi gën a métti bu ñu xam ci xeexul islam ñoom ñu ñëw romain yi nekk cent mille jullit ñi nekk trente mille ñu xeex ay xeex keroog ba ñuy gagné Abdullah dafa ñëw ne day bokk ci xeex bi gaa yi na ko hey yow silmaxa looy xeexe mu ne suñu borom nee na silmaxa amul ngant ci bañ a dem waaye yàlla waxul fenn silmaxa bu mu jihaat yaa ngi dégg bàyyi leen ma et puis nañ ko jox drapeau bi mu jiite ndax xam nga silmaxa moom amul fu mu daw jëm xamul lu xew moom lañ jox drapeau bu mu jiitu keroog sahabatul kiram xeex nañu 24 heures ndax gaa yi xam nga luy 24 heures bañ attaqué ca fajar xeex nañu ak waa ruum di xeex ba tisbaar ba takkusaan ba timis ba géey ba fajar jotaal ci la romain yi doog a daw sahabatul kiram taxaw di xeex loolu mbokk ñooñu kenn mënu leen a dab kenn mënu leen a dab mi ngi noonu kenn mënu leen a dab kon kooku mooy abdu mooy abdullah ibn abi maktum suñu borom yàlla daaji ne ah ñëkkal na kanamam waaye gis nga ba tey yéen suñu borom waxul fenn ne tudd turu muhammad wala tudd rasulullah wala mu ne ko bi ngay ñëkkal sa kanam day mel ne keneen lay waxal am déet ngir teraanga ngir respect boo xam ne nii jox na ko yonentam donte ne moo ko bind jaamal la moo ko moom musu ko wax muhammad li mu koy wax rek ya ayuhan nabi mi ngi noonu yaa yor rasul moo tax fii dafa mel ni keneen lay waxal daa di ne abasa wa tawalla ñëkkal na kanamam mu dum mooyu ndax silmaxa ba dikkal na ko lan moo lay xamal ne moom daa ñëw ngir sellal bakkanam waaw ki nga xam ne da yow da ngaa woote ci kay leen sellal seen bakkan moom mu ñëw di sellal bakkanam nga dàq ko ah médecin bi yóbbu ci hôpital na ko malade bu ñëw faj ko ab malade ñëw mu dàq ko kooku du du nekk fëti fa waay looloo tax yonent yàlla nu ba ka gaa yi ne hey ñun mu ñun ña laa topp baadoolo yi la topp boo bëggee ñu gëm la bàyyi leen fële mu ne leen déet wa ma ana bi taarijil mu'minin du ma dàq mukk ñi nga xam ne dañoo gëm kon yow yeneen bi lu tax nga def loolu ca moom day mën na am mu fàttaliku ba fàttaliku doon ku koy jëriñ te it mbokk julit loolu mooy jubluwaay doomu aadama bi sa jubluwaay bi gën a rëy waaraate ba waaraate ba jëriñ ak noo ko mën a defee ci xikma te loolu itamit moom lañ jàng ci gannaaw wax nit ki dëgg loolu yomb na fexe ba dégg loo ko dëgg loolu mooy problème bi loolu tax Moussa suñu borom na ko firaw na lu muy bon bon bon boo demee bu ko gëdd bu ko xas wax ko rek wax ju nooy fa qula lahu qawlan layyinan ca taaha wax leen ko wax ju nooy ca mooy fi saar biñ génn it ndax firaw na doo kaay sellal sa bopp ngir mu fàttali ko borom bi nag ne ko ñii nga xam ne ñooy waa Màkka yi nga xam ne ñoom doylu nañ ci sa bu woote bëgguñu koo gis bëgguñu koo dégg ngay rey sa bopp ci ñoom guddeeg bëccëg mi ngi noonu di leen gaar guddeeg bëccëg pour ñu dégg ñoom bu ñu duggul ci diina ji sa yoon nekkul ci loolu ama alayka la yuzakka mi ngi noonu am maa nekk ki nga xam ne dalaa dikkal moom xiir jëm ci yow mi ngi noonu ba pare booleeg ragal yàlla dara yëkkatiw ko lu dul yàlla yow nga di ko sàggane mbokk loolu suñu borom yàlla mu ne déedéet bu defe ci loolu alxuraan ak waaraate la ñépp a ci yem ku ku ku ku ku mu neex mu ñëw waaru ca tamit malheureusement ñi ñëw gannaaw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu bari ci ñoom nee na ñooy dañuy woote ci diine la ñuy woote waaye bu mbooloo mi ñëw dañ leen di xaaj ay catégorie borom kat kat yi ak enveloppe bi cent mille yi ca kaw la ñu nekk am déet mi nga noonu gaa yi nga xam ne borom cent francs yi deux cent yi ñoom mi nga noonu la géttu bay ala kulli xaal mbokk da ngay gis ne lu bari ci nit ñi loolu la ñuy def mooy teqale ñi nga xam ne dañoo am ak ñi amul waaye diine musul am loolu fële la alhamdu fi ñu koy waxee jàkk ji ñu koy waxee ku jóge woon fële ay millionnaire ñu ngi suñu biir naam ay kilifa ñu ngi suñu biir mais ndax dana mën a xàmmee kilifa ak kudul kilifa déedéet tey jii le ministre bu doon dafa ànd ak chauffeur am ñu dem ba ci jàkk ji ñu ñëw day jël tànkam teg ci tànku chauffeur am chauffeur am jël tànkam teg ci kawam seen mbagg sosoloo am de loolu mi ngi noonu lu waral loolu mbokk mooy diine dafay woote ne ñépp ci yem fa man shaa zakara amma woote diine boo xam ne nii dañuy def ségrégation mbokk loolu njuumte la ku ko mën a def nag njuumte la nit ñi dañ leen war a yemele ci place yi jaami yàlla yi borom boobu subhanahu wa taala ni alxuraan yi mi ngi jóge ci ay kayit ay bindukaay yoo xam ne yu ñu teral la yëkkati ko laabal ko seytaane du ko jege ay malaaka ñoo ko yor di ko wàcce malaaka yooyu nga xam ne dañu nekk ñu tedd ñu baax loolu it muy wane ni képp koo xam ne nii yaa ngi xam alxuraan war nga fexe feeñal ak mbaax ngir loolu di refléter ndab boobu la yàlla tànn jagle li téereb yàlla bi ñu bañ laa gis ci ay mbon ak i caaxaan nga roy malaaka yooyu nga xam ne nii borom bi tagg na leen ni ba mu leen joxee ab téeréem dañoo nekk kiraamin barara borom bi daal di bàyyi loolu ñëw nag ci doomu aadama ay li ëpp ci ñoom mu ne alkaa nga ñeel na doomu aadama perte na doomu aadama qutilal insaan ak tar ak kéefér tar ak kéefér muy lan mbokk doomu aadama li yàlla wone ci gox yi luy wane ne yàlla kenn la li yàlla wane ci ay téeréem wane ne yàlla mooy borom kattan lu mu wax dëgg la yooyu yëpp doomu aadama bokk a weddi suñu borom yàlla mu ne doomu aadama tar kéeféer waaw doomu aadama bi sax weddi ne dee dikki amul te na mu amee woon ba alxuraan di wàcce da amee ba suñu jamonoy tey man ngaa waat ci yàlla ne ñi ëpp ñuy dund planète terre gëmuñu ne dee dikki am na gis ngeen mu ne waaw xanaa xamul ci nan lañ ko bindee doomu aadama yaa ngi jóge ci toq maniyu toq maniyu toq maniyu suñu borom yàlla jël la quelques mois après nga nekk nit complet nit borom boobu subhanahu wa taala mu ne gannaaw ba moo ko jël daal di koy nattalee dogal ci moom la mu dogal ci moom ba mu nekk góor jigéen nekk la la neex yàlla gannaaw ba yombalal ko aw yoonam te mbokk ku xam jigéen fa muy génnee doomam doomu aadama ab liir génne fa léeg-léeg liir liir bi pesé quatre kilos et quelque génn sans problème nga xam ne lii yàllaa ko yombal am déet même boo gisul jigéen buy wasin xool rek xar muy wasin nga xool bo bopp xar bi ak jëmmi xar bi bu génnee ne pët ñoo ñoo ne la xoolal fii la jaar ba génn nga xam ne lii yàllaa ko yombal su ma sabbi la yassara gannaaw bi it yàlla ko yombalal suma sabir yassara ba mën a dégg ba mën a gis yàlla yassara ba mën a jóg di raam ba mën a dox dem ba mujj di mën a yenu ay saaku ceeb mi ngi noonu yassara ba mën a xa- jàng mën a xam ba mën a yor nguur mën a yor alal loolu lépp yombalug yàlla la summa sabira yassara waaye borom bi mu ne lu mu yàgg yàgg it suma amaatahu fa aqbara bis da nga masa dee ñu dugal la ci biir suuf mi ngi noonu waaw kooku nag heure bu ko neexee mën na ko génnewaat ka jëloon toq maniyu dugal sa biiru yaay mën na laa génne ci suuf taxawalaat la ci kattanam muy lu simple borom boobu nag subhanahu wa taala ni heure bu ko neexee dina ko dekkal waaye day doomu aadama deful lañ ko sant ay la ëpp ci doomu aadama la leen santoon defuñu ko lan la leen yàlla santoon mooy yàlla da leen santoon ngir ñu jaamu ko wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li yabudun doomu aadama yàlla da la yombalal yii mu la yombalal lépp dara taxul lu dul nga jaamu ko amma nag la ëpp ci doomu aadama yi jaamu ñu seen boroom yàlla nañu yàlla boole ci ña koy jaamu cam nangul leen
فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة jazakumullahu khayra suñu borom jalla wa ala mu ni falyanzur al insanu ila ta'ami e way doomu aadama na xool jëm ci ñamam anna sababna al ma'a anna sababna al ma'a sabba ñun de ñoo sotti ndox bi ak sotti ثم شققنا الأرض شقا gannaaw ba ñu daal di xar suuf ak xar fa ambatna fiha habba ñu daal di cay saxal la nga xam ne mooy pepp ma génn ca pepp ma wa inaban wa qadba génn ca raisin génn ca lujum ya wa zaytunan wa naxla génn ca olive ya génn ca tàndarma ya wa hadaiq gulba ak jardin ya nga xam ne mooy borom datt yu rëy ya wa fakihatan wa abba génne ca ay fruits génne ca ñax mu jur gay dunde muy abba mataan lakum wa li an'amikum li lépp nekk xéewal ñeel leen ak seenug jur fa iza jaati sooxa bis boo xam ne ñëw na riir muy fuq nopp ya yawma yafirru al mar'u min axi bis ba nga xam ne nit ki dana daw doomi ndeyam ja wa ummihi wa abi daw yaayam daw baayam ba wa saahibatihi wa baniih daw soxnaam sa daw doomam ya li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni ndax képp kenn ci ñoom bis keroog day am mbir mu ko doy sëkk wujuhun yawma idhin musfira keroog day dana am kanam yoo xam ni ña nga doon lu leer dahikatu mustabshira ña ngay ree di feeñal seen mbig ma wujuhu wa wujuhun yawma idhin 'alayha ghabara dana am ay kanam yoo xam ne dana nekk ca kaw lii di pëndu yawmal qiyama ba tarhaquha qatara mu muur leen lu lëndëm këris na guddi ulaika humul kafaratul fajara ñii day ñoo ñi weddi woon nekkoon kàccooru def kotu bakkaar ya mi ngi noonu mbokk suñu boroom wax nañu lu bari ci lim def ci jaww ji wax ñu fi mu jaar ak doomu aadama mu ne doomu aadama bu waaruwul ba tey e waay doomu aadama xoolal ñam bi ngay lekk yow mi weddi ni ki nekk poussière ci biir suuf du dekki xoolal ñam bi ngay lekk ñun yàlla ñun ñoo sotti ndox ak sotti ci niñ leen ko fi waxee mooy ndoxu nawet su doon yàlla day xool trois mois nawet yi li war a taw lépp mënoo ko bëmbëx benn yoon kon immeuble yaag montagne yeeg yépp ñooy raafaloo waaye suñu borom moo ko jël période bu nekk mu xool dose ndox ba yem ak loolu mu sotti ko di ko def sabban sabban ba ba nawet yi di jeex gannaaw bu mu ne man maa xar suuf ak xar iwaay yow mi xel xoolal kii dem ca àll ba daa di gas suuf na doon larmet la yor wala machine bi xotti suuf si ñu jël pepp dugub boo xam ne boo ko doon peser tey jii boo demoon ci bitig bi na ko peser ko du ko mën a gis jaaykatu or yi ñoo la ko mën a peser ñu xool ñu ne kii ça fait zéro virgule un gramme masalan pepp dugub bi nga dem ñu sotti ko ci suuf jël lu jege liibaru suuf teg ci kawam waaye loolu nga xam ne mutul un dixième de gramme balaa semaine nga ñëw fekk bëtt na suuf sëpp génn gaa yi loolu amul ko ko xàllal yoon li mu jàll la waay boo loo gàtt gàtt xel xam ne kii am na ko ko xàllal mi nga noonu suuf mu ne maa ko xar génne gàncax gi pepp maa ngi nii génn ñaata variété de pepp ñoo nekk ci kaw suuf c'est des milliers de variétés yàlla mu ne maa leen génne raisin yi génne légumes ya maa génne olive ya maa génne tandarma ya maa génne jardin ya fruits ya ba génneel leen ngooñ mu seen njaboot gi di dundee loolu lépp mi ngi jóge ci suuf soo xam ne mi ngi wow koŋ wa taral arda xaashia wow koŋ fa ida anzalna alayha almaaha tazzat wa rabat wa anbatat min kulli zawjin bahi mi ngi noonu génn ci li nga xam ne nii kon ñu xool ne suñu borom yàlla ci kattanam kon suñu suñu borom yàlla ci kattanam noonu la def heure booy xalaat ci li nga xam ne yaa ngi cay lekk nga xool la nga xam ne nii moom mooy cosaanam nga xool la nga xam ne mooy cosaanam da ngay gis ni bu dee xellu nga rek xam ni suñu borom yàlla day war naa suñu borom yàlla bu ñu dana dekkal ñi dee woon loolu sikk sàkk wuru caa am borom boobu subhanahu wa taala nag moo tax mu ne bis boo xamee ne nii dana ñëw la nga xamee ne nii moom mooy yoox gu mag a soox ca mbokk xool leen benn buy taw am na dënu yoo xam ne da nga koy dégg dënu gi tiital gëm lay tiital ca ñaari bloc nii rek ñoo daje loolooy jur yooyu suñu borom def ca lañ ca def xoolal nag loo xam ne day tax asamaan explosé suuf explosé moo gaa yi loolu ndax mënees na ko imaginer déedéet ba tax borom bi tudd ko sooxa mooy li doomu aadama mën a dékku ci bruit passé na loolu day bëtt nopp ya yàlla indi bis penc ci kattanam comme ni mu génnee meññeent yi mu la wax yépp ci kattanam ci suuf noonu lay génnee doomu aadama yi ñu taxaw ci kanamu borom bi jalla wa ala bu keroogee doomu aadama da ngay gis ni ku nekk dana soxlawoo kan moo ko mën a dimbali dollil ko benn tuyaaba waaye suñu borom mu ne déedéet wa in tadu waziratun ila wizriha la yuhmalu minhu shay'an di noonu la ko waxee de walaw kana za qurba ki nga xam ni daa am ay bakkaar bëggoon ku ko ci yarul dara kenn du ko ko yenul ak kooku lum ko jege jege da gis koo xam ne nii dina gis frère am daw ko du ko xalaat du ko toppatoo waxuma loolu sa ndey ji la juróon boo ko gisee yowmal qiyaama da nga koy daw sa baay da nga koy daw sa soxna da nga koy daw say doom da nga koy daw lu waral lii mooy ku nekk yowmal qiyaama da nga am loola doy sëkk ba baa yàlla di atte jaam yi di la yóbbu àjjana waaye avant loolu am nga loola doy sëkk faale woon ndey baay doom kum mën a doon waa léegi nag waaj ñëw mën a mën sëñ caam mooy sama yaakaar adduna ak alaxira waaw sëñ caam xanaa amul ndey xanaa amul baay xanaa amul doom doonte ne gaa yi am nañ nuñ ko réglé ñoom dañ naan yaayam ci saayir baayam ci saayir ay doom ci saayir waaye saayir amul de ba saayir saayir ak baatam yëpp ak njabootam rek lañ mbokk alaxira kenn du tal kenn xatta yonent yi alayhim salaam la ñuy tal mooy seen diggante ak seen borom ñu ngi noonu kenn dong mooy tal kenn muy yàlla jalla waala kenn dong mooy tal muy yàlla jalla waala su ko defee ki nga xam ne dafa xellu day xalaat ma man yowmal qiyaama naka lay def ba mucc loolu mooy sa problème borom bi nag nee na suñu attee ba pare su boobaa nag daan gis kanam yu leer yoo xam ne ña ngay ree ku ne ñu won ko mbigte ba ñu am lu tax muy résultat yi ñu yor ha um iqra'u kitaabiya xool leen man day sama résultat génn na man texe na àjjana laa jëm yàlla na yàlla boole ñu ca donte ne borom bi nag nee na dana gis keroog yoo xam ne keroog la ko yiir mooy poussière la ko yiir mooy poussière waaye it qatra encore yiir na ko mooy lu mel ni qita'un min al-layli muslima la ko yàlla wax dafa mel ni guddik lëndëm ca muy ab yéeféer ab saay-saay yowmal qiyaama lay nekk ci moom ci pënd ak poussière kanam nga boo ko gisee doo ko mën a xàmmee lu tax mooy ñooñu ñooy ñooñu sawara lan moo leen ko yóbbuwoon dañu nekkoon kafara dañoo weddi woon ci seeni xol fajara ba pare seeni jëfit lépp nekk jëfi saay saay loolu mbokk di saar wu mag wi dañuy won ci commencement doomu aadama yi ni ñuy peser du noonu mbokk teddaange mi ngi ànd ak ci gëm yàlla ragal yàlla même bu doon ab silmaxa toroxtaange dana ñeel képp koo xam ne daa du du mooyu waraate bi même bu dee daa bokk ci aristocrate yi bokk ci borom alal ya ndax lay mbir bi mooy fan la ñuy mujjee képp koo xam ne sa mujj mooy ajjana loo mën a jaar ci àdduna kenn du ko tudde toroxtaange képp koo xam ne sa mujj mooy sawara foo mën a jaar ci àdduna kenn du ko tudde teraanga yal na yàlla teral ñu àdduna ak alaxira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain waaw xam na bu dee dañuy laaj ci zakat yi nga kii ci laaj yi jaar ci internet bi kii dafay laaj ne waaw ndax man su ma liggéeyee ba retraité li ñu ma doon dagg ndax loolu danaa ci génn zakat loolu day mbokk borom xam-xam yam nañ ci ixtilaaf doonte ne nii la gën a not mooy loolu zakat waru ca dagg yooyu ñu lay dagg dagg contrat la yoo xam ne xaalis boobu moomagoo ko joxaguñ la ko nekkagul du la jëriñ kon kañ ngay kañ lay doon sa moomeel bis boo demee retraite bañ jël ko teg sa loxo su boobaa nag su amee ci yow un an nga cay doog a mën a génne zakat kii moom dafay wax ni maag sama soxna dañoo divorcé ca Europe bi ñuy divorcé nag juge yu yéeféer bi moo prononcé divorce bi léegi nag idda bi moom jeex na dañoo bëgg a jubóowaat nag ndax man comme fasewuma ko woon mën naa koo jëlaat saa ñu takk sëy bi mbokk jullit borom xam-xam yi day dañoo am juyoo ci divorce boo xam ne yéeféer da koo def ci dëkku yéeféer soo demee ñoom seen centre islamique yi dañ cee am ay juyoo am na boromi xam-xam yoo xam ne li ñuy gis mooy képp ku nekk ci am réew tënku ci seeni loi bu ñu demee ci tribunal ba nga dem yaag sa soxna yéen dem ci tribunal ba juge bi prononcé divorce bi divorce boobu day day wéy day sax am na ci ñeneen ñoo xam ne dañu déedéet ab juge yu yéeféer de prononcé divorce jullit mu am ñoo xam ne man ñoom laa ci àndal mooy ñi digg doomu mooy ñi ne su dee juge bi day bi mu prononcé divorce bi bu doon juge bu l'islam day prononcé divorce bi su boobaa sëy boobu dañuy jàpp ne sëy bi tas na amma bu doon juge l'islam boo fa bu fa nekkoon de prononcer divorce bi sëy boobu duñ jàpp ne sëy bi tas na kon kooku dañ koy wax soxna soosu nga xam ne moo la yóbbu woon tribunal dañuy xool ndax bu doon attekatub l'islam moo ko diglu woon day tas seen diggante ah su boobaa nañ takkaat sëy bi amma bu doon te ne attekatub l'islam bu ko diglu woon du tas sëy bi ci yow mosoo ko may baat dañuy jàpp ne sa soxna la ba léegi wallahu subhanahu wa taala alam kii mu ne moom it sox borom këram da koo fase léegi benn fase ah jëlaat ko fase ko ñaareelu fase léegi idda ba jeexul ndax jëlaat ba ca premier fase ba lay doon wala ci ñaareelu fase ba lay ñaareelu fase bi it mën naa nekk soxna caam ba ñuy wax bul def lu ñuy fase waaye nag maadaama idda bi jeexagul même bu deen ñaareelu fase bi tant que idda bi jeexagul am na droit jël la amma nag bu idda ba jeexoon fokk dañuy takkaat sëy bi mi ngi noonu bu dee ñetteelu fase bi it am na erreur yu ci am am na ñu jàpp ne ci fase soxnaam ñetti fase tant que idda bi jeexul mën na ko jëlaat laa wallahi mbokk julit une fois que ñetteelu fase ba am idda amatu fa ñeel waaj bis ba mu ko fasee la xaram ci moom ba baa muy sëyeeg beneen jëkkër mbokk kon loolu lañ doon doyloo ci internet bi léegi bu doon am nañu nekk fii bismillah naam naam naam bépp jigéen boo xam ni fase nga ko fayliwoo ko ba iddaam jeex yàgg góor ñépp ci yem léegi yàgg góor ñépp ci yem boo ko bëggee takkaat da ngay indi can ñu indi ay seede wali yoom may la ko mi ngi noonu wallahu aalam naam bismillah naam waaleykum salaatullah bépp atte boo xam ne dañ caa sikk sàkk islam du ko saxal islam day sax ci yaqin mais lépp loo xam ne sikk sàkk la loolee islam da kay du ko saxal dañ ne al yaqin la yazulu bi shakk sa soxna la may nañ la ko dëgg la léegi da ngay sikk sàkk ndax mas naa koo fase mosuma koo fase loolu dañuy jàpp ci cheytaane lu jóge jàppal ne sa soxna la wallahu subhanahu wa taala alam naam naam naam
firawna moo ci jiitu waaw firawna dafa gën a bon iblis wala dañuy jàpp ne li firawna ne ana rabbukum al aala jooju ñu àgg laa bu ñuy wax innahu taxa mooy ñañu yónni waar leen iblis kenn yónnil ci moom ab yónent bu koy waar iblis cheyt doomu aadama yi ki ñu gis mu taxaw ci yàlla feeñal ci ne man kat man bew naa ba yàlla seede ak mbenam loolu muy firawna donte ne sax jubluwuma ci woon ne moo ko jiitu waaye buñ naan diw kenn gënu ko réew ça ne pas dire da ngaa jublu ne moo gën a réew ci àdduna bi da ngaa jublu rek ku réew la comme histoire am lañ lañ lañ mujj a jàng moo tax mu ne firaw ne mii ñu jàng sànq borom bi ne tëxa yowmal qiyaama suñu borom ne fu ma mën tëxa firaw ne mii moo ci jiitu donte ne it ci histoire ku ko gën a tëxa xawma ko yaa ngi dégg donte ne am na ñu woote woon na ñoom it ay yàlla lañ comme Namruz bi nga xam ne moo tamit woon ak Ibrahim ba ko Ibrahima nii suma borom mooy rabbi ladi yuhyi wa yumiit dana ko wanaa uhyi wa umiit ma ni damay reji dekkal waaye kàccorte gi firaw na def ci kaw suuf gisuñu benn jaamu yàlla bu ko def bu dul moom wallahu subhanahu wa taala alam waa ñu mujj ci mbokk bi waaw bismillah mën nañ ko génni ndax muurum koor mën nañ koy génne léegi ala kulli xaal mbokk loolu gënul loolu loolu gënul muuru koor daal mbokk la ca gën mooy ñu bàyyi ko ba mu des ñaari fan heure bu ay ixtilaaf ci amee ci borom xam-xam yi del jël la gën a wóor rek et puis ban sens la am muuru koor li ci gën a am solo mooy bisu iid bi jullit ñëpp bokk ko waaye ci càmmin tey boo yóbboon yóbbul ko fukki kilo ceeb dana ko fa denc ba ba kii looloo tax borom xam-xam yi daal dañ naan nañu góorgóorlu mooy fii bu desee ay ñaari fan su boobaa moom mën nañ koo génne amma nag ñuy wax ne bu koor gi xaajee mën nañ koo génn kasaw a génne ñun daal lañ ca tànn mooy mënees na koo génne deux jours avant korité yal na yàlla yombal ñu ñu génne ko cam nangul ñu ko wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain